fii de moom ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax a a baax parce que vraiment waa ji bi muy jóge fële ñëw di jël clando dafa doon laajte ban oto moo doon dem quoi après si la daanu fii pendant deux heures de temps mu ngi fi toog ñu ngi woo sappoor mënuñu ñëw te loolu noonu rafetlu bu lii amee tamit ñëwuñu vraiment ñun fii même pas un kilomètre xam nga ñu koy woo pendant deux heures de temps mënut a ñëw pour secourir de mu ngi que xam nga lu dal te ñun ko dem parce que xamuñu lu ko dal waaw au moins face ngi taxaw pendant deux heures de temps ñomit di di def li def di pour mu population bi mais ba léegi ce mais vraiment affaire yi ñu koy parce que ba fi mu toll nii sapeur nous parce que nous ji tamit bi mu fi di yàlla defagul li gën mais fi mu toll nii dafay yàgg ba fi mu nii ah li ñuy yaakaar mooy yàlla def na li gën de façon affaire yi daal doy na waar ay baax a baax a baax a baax na parce que nag population bi xaaruñu fii gouvernement bi fi leen di xaar mooy fan mooy ñu ñëw indi ay matériel pour dimbali nit ñi ay ak ay yoo xamante ni dañ koy jël di koy stocké pour di xaar pour di ko séddale nit ñi liñ soxla mooy buñ feebaree faju suñ daanoo gis leen dalee ñu gis seen taxawaay ñun loolu la ñu soxla population bi loolu la ñu bëgg. da doon dox ba mu yàgg daanu kenn xamut lu ko dal mais le problème en est dañ toog deux heures de temps gars yi di woo sapeur kenn mënul jot numéro. waaw fu mu ne nii police tamit ñëw teewee ko mais police tamit gars yi xamuñu ndax dee na wala deewul ñi ngi naan dee na ñi ngi naan deewul mais presque def na fi deux heures de temps mënul jóg fu ne muur nañ ko waaw loolu daal doy na waar trop parce que bu nekkee nit daanu am problème war nañ mën a jot sapeur pompier wala service yi nga xam ne ñoom ñoo war a ñëw au secours waaw loolu daal af nañ si trop waajaa ngi tëdd ba léegi ñii ngi naan na ñii ngi naan deewu doy na waar daal maa ngi tudd As dëkk Parcelles Unité 22 bi daal fii la woon ñëw di jël clando jekki-jekki daanu deewu woon nag xamuñu dee na xamul deew mais su ba léegi ñu ngi woo sapeur mënuñu ñëw def na fi trois heures de temps xaar ñu lay si si njiit quoi franchement for lii ñëpp ko doon topp feebar bi te ñaan ko yàlla bu deewee ñu dugal ko ci feebar bi kenn rafetlu wu lii ñun ñëpp métti na ñun waa quartier bi ñëpp amuñu lu ñu neex daal mënuñu sax wax waaw. di daal daal xalaat la leen jékki-jékki daanu ba ba léegi nag ñu ngi woo Sapeur def na fi deux heures de temps trois heures de temps ba léegi ñu ngi woo kenn lii nag xamul lii lan la daal. à peu ay cinquante ans. loo xam ne jaaxal na ma trop. si sunu quartier bii ñu dëkk ndax dama xëy di génn tesanteeg nit mu daano sama kanam depuis 9 heures bi mu daanoo 9 heures dara jotu ko woon mais léegi nee nu dee noonu nag xamuñu lu ko amul kenn ku mën a taxaw fii nit lii moo ko rey laa wax amul ku mën a taxaw nit kii lii moo ko rey ku wax ni lii moo ko rey da nga wax loo neex mënoo xam kenn lu lii waa ji lii moo ko rey l'essentiel daal 9 heures la daanu ba ñoom c'est 11 heures quelque mun ñu xam la moo ko dégg wonu ni nañu sapeur woot nañu fu ñu war bi ma amee am na am na nañ ko waaw mais kenn mënul taxaw ni lii moo rey ñun nag ñun danoo sonn nit bu sonnee mooy dee na bu sonnee mooy dee ndax sax nu boo rek rey na ah waaw dimbale ñu ñu delluwaat fa lu nekkoon lii kenn xamul kañ lay jeex nanu bàyyi ñu ànd ak moom Mamadou Niang Mamadou Niang lii de ñun ñëpp ñoo ko gisandoo dañoo yeewu ñëw fekk fi affaire bi bi ñu ñëwee fekk mu tëdd nit ñi nag dañ leen war a dimbali parce que sonn nañ trop quoi jàppale leen taxaw leen parce que askan boo ko amee da nga koy taxaw jàppale ko dimbali ko. xam nga waa ji. non waa ji wu ma ko xool naa ci bi ci bi trop. koñ bi laa dëkk mais xaw ma waa la doon jël laajte fan la calendrier yu am jaay ni ko calendrier am fële jéeg-jéeg saa daanu mais ñu ngi doon dund quoi mais xam nga xaar dafa yàgg xaar bi yàgg bi nag moo indi problème bi yëpp mais nañu jàppale askan bi dimbali leen taxawu leen parce que ni ñu sonn nañ bu mu yàgg nit jàppale dimbali bu ñu feebaree wala ñu daw taxawu leen daw yegg si dimbali leen jël leen yóbbu leen am lan moo leen dal ci ni leneen la une heure de ko une heure de temps ñu parce que mooy loolu quoi mais bu ñu dund bi baax mais na ñu leen di jóg si askan bi di leen saytu leen da leen di jàll da leen di dimbali waaw parce que fu ñu nit ñi moom sonn nañ trop sama mairie laa quoi d'accord ya. eh, est-ce que mën ngaa dikkaat li nga li nga fekk rek li nga gis rek nga wax man bi ma xëy si fi laa ko fekk mu daanu tëdd. ay yan heure. laa fi laa ko fekk mu tëdd mais accidentellement xaw ma lu ko daloon mais yow yow deux policiers ak ku civilu bon man accident la ma laajte ci taxawoon en fait ñu ne du acc du accident dafa ñëw fii daanu da dem jël clando daanu neuf heures ba heure ba mu ba mu mujj gaañu loolu la ci ñëpp xam bu ñu bu ñu xoolee nag ay pièces yooyu xam transporteur mooy ñuy jaay euh, comment dire bête am waaw loolu daal parce kenn mënul xam la wax li ko rey. fekk nañ ci moom xaalis bu bëri. ah. waaw neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille waaye c'est un transporteur mooy ñuy jaay béton ak suuf policier bi téye woo nañu ay mbokkam ña ngay dem commissariat xam naa nag su fekkee yàkkamtuwu leen ngeen dem commissariat da ngeen fekk mbokkam ngeen gën a am information bu gën a leer parce que loo ci mën a wax du loolu tamit da ngay wax lu la neex. naka nga borom yàlla rek yàlla yàlla tuddoon na fii lay faatoo fii lay faatoo. non xaw ma ko parce gisu non gisuma carte d'identité mën naa gànta